tamit bañ ko vérifié te mu nekk dëgg donc euh, merci beaucoup à moo tax bii tamit gëm leen ñu koy nuyu bu baax a baax Nims borom kawteef yooyu merci beaucoup à toi alors parlons de Wally Ballago Seck njàpp ak ki nga xam ne nii mooy waa ngeen di seen borom kab bile euh, moom nag nee moom moo jaay ki nga xam ne benn oto mi nga xam ne njàpp la ko jaay mais depuis mu ko jaay ba dafa mel dafa am ba léegi fayaguñ ko. donc pour mu gën a leer man leer si yow leer ki yëpp nga xam ne ni moo ngi siraan da dem na déglu waaye daal di ñëwaat si plateau bi ay déglu jaa bi déglu bu baax a baax sa fanx bi yaa ki nga xam ne nii moom mooy euh, comment il s'appelle encore waaw daa gis bi euh, Fatou Ndiaye parce que instant boobu ñu ngi dégg waaye may njàpp oto yi. wala wax loolu. moo wax sa sœur. moo wax loolu sa sœur sama sœur bi euh, ñu ngi tase restaurant bi nekk Almahdi di fa lañ tase bi ñu fa tasee waa lañ fa nekk ak njàpp ak benn waaju sant Cissé bi ñu demee waa Wally vérifier oto bi validé ne dama leen di bindal chèque gu 7 millions su ko defee Cissé ñëw jox leen seen xaalis ngeen dem dernière nouvelle ñun loolu lañ ñu wax ñu toog di xaar toog di xaar deux semaines heure bu ko woowee duñu leen jot duñ leen jot duñ leen jot ba à sama faiseur bi maar mais vu que avant loolu di ñëw sax internet bi ñu gis nañ comme ñu ko Sénégal yëpp gisee que Wally Seck jëndal na njàpp oto et te ñun suñu xaalis jotaguñ ci jotaguñ suñu xaalis. noonu lañ ci amee mais comme que Wally Seck la on était calme quoi xamoon nañ ne peut-être dina nekk lu xam ne lu sérieux la dinañu fay ñu dem woo leen woo leen woo leen ba sonn mujj gi à la fin moom Mapenda Wade dafa ni euh, entourage Wally ci ñenn dafa mu xam ne papam dafa gaañu looloo tardeel mbir mi ba ñëwaguñu indi xaalis bi ñu toog ñu toogee en certain moment waa ji woo ñu Mapenda Seck mooy ki yóbbu Mapenda Wade ki yóbbu oto bi woo sama sœur bi ne ko mais est-ce que mën naa am. carte d'identité bi ñu def turu oto bi mu ne ko non yéen da ngeen ma waxoon da ngeen di ñëw ñëwoo leen après di ma laaj loolu mu ne ko non booy dañoo bëgg a fay na ko dañoo bëgg fay nañ ñëw sama kër ñu gisaale ma man mi moom oto bi ak contrat yi ñu bind ko ñu jox leen ngeen dem mu na ko d'accord waaw amul problème ñu toog ñu toog ñu toog ñu toog ba trois jours après moo waat ko ne ko gars yi de gis nga jënd nañ sax benn genre tapis jënd nañ genre antenne pour defar oto bi mel ne daal ñoom dans sa tête ñoom moom nañu oto bi réseau yaa ngi daw snap yi te ñun gisaguñu xaalis léegi par la suite ci lañ ko ci lañu ñu woowaatee nañu booy dañoo dóor xaalisu Wally Seck mooy njàpp ak ki mu waxoon ne bindal na ko chèque bi mooy ki sant Seck ki sant Cissé moom bindal na chèque bi tout mais gisaguñu xaalis bi quoi comprendre nga. kon euh, alors yéen ko déggandoo est-ce comprendre bu baax baax. comprendre na que maanaam moom mii di. wax moom mii di wax daf leen jaay oto. Mhm. bi mu leen jaay oto oto bi ñëwul jox leen ko noonu ndax jël na oto bi dawal ko ba ci Wally Seck ndax dafa ni waalee validé. Mhm. ba pare bind chèque. bind chèque. Ah, mhm. jox leen. te loolu leer na. Mm. moom mi validé bind na chèque bu 7 jox leen man wax ji nag dama cee am ñaari woro mm. Mm. mooy bind nga chèque jox nu ak ñu xëy di leen woo. est-ce que comprendre nga fi mu bëgg a waxee. Mm-hmm. man loolu ma yéem quoi. dama foog ni ki bind chèque jox la kañ demal nga jël. retiré ji jeex len nay am. nga dem ñu defal la chèque dóor. Mm-hmm. ba munoo cee jot. ak nga woote man balaa ma cee wax moom faa mu leeral ma. biñ ko bindee chèque biñ ko joxee chèque lan la ci def. dafa dem ñu ne ko baaxul wala dara ba ba ba tax mu xëy di leen woo wala après muy woote ay dañ ko dóoru dóoru leen. comprendre nga kon foofu du fu fa mën a sori. wax dëgg fa yàlla du ma parce que moom moo ni waali validé na. oto kan lañ ko doon utal. njàpp. ndax moom moo nag foog naa koo ñëw ba ci moom mu bind chèque. jox la. Hmm, kooku pare na si signé na kooku pare na. loxoom loxoom pare na si loxoom pare na ci. waaw mais moom moom tuumaalul waali. waaw tuuma tuumaalul waali parce que ci biir man non xam nga lu ma jaaxal. Mhm. pour lan moom ñu jox ko chèque. waaw question bu jar a posé nga posé. yaa ngi comprendre. Mhm. après leneen di ci am loolu moom na ko leeral ba pare ñu doog ci wax. Mhm. en tout cas leneen may waxaat lii man maa ngi koy adressé waali Seck ci boppam man. waali na xool ay mbiram bu baax ci mbiru oto. surtout loolu liñ ko ciy tudd dafa bëri. dafa bëri trop. affaire de kii may na ma oto. oto bi baaxul kii te waale amul lu mu expliqué. te à chaque fois lu baax la siy def na la ciy baax waale nee na wallaahi pourtant oto yi ma leen di jox sax du ma ko gis ay temps xëcc ne la may naa la oto xëcc tourné yem ci Armand Ndiaye xëcc caabi ne ko indi sa caabi joxe ko waale oto yi muy joxe sax moomu ko waaye daf ko sañ def ay nit. Mhm. leeral na ko pourtant ba mu leer. fekk ci caat sekk sax na bi mu jëlee oto bi caat naan baaxul oto kenn la jël pourtant jox ko ko bi ñu fa ak oto jàmbur la jël jox ko ko parce que sañ na ko ko def ndax ñoo ko ko sekk ndax moo leen koy joxaat mm-hmm. léegi nag oto boobu mu jël di la jox mën na nekk ci état bu baaxul pourtant mm-hmm. xamul xam nga waa mooy jël mais yow kii li mu wax leer na dafa jël oto bi dawal ba àgg mu validé jox la sec sept millions demal retiré. coow lu jeex. coow lu jeex len nay am da ngaa retiré ñu ne segu dóor la wala leneen ak seen kon loo ci wootaatee moom de un waxul yi waaye diggante njàppal tudd ak xaw ma kan ku sant nan. Mhm. caam xaw ma siise xaw ma ku sant siise la wax léegi ñoom it ban dóor lañ ko ci war a dóor ci chèque. ñoom la ko jox mu ñu retiré ko léegi wala. Mm, wala waali ñoom la ko jox directement. waaw léegi loolu ba dafa am wax ji lu ci des balaa ma cee xuus dëgg-dëgg. Mm. dafa am lu ci des faaw moom mi bu ñuy dégg. mu ñëw leeral lañu wala mu wax ñu fu mu ne ñu dem mu leeralal ñu ba mu leer lan a xew ak chèque ba ak dóor beeg loolu ñu xam. Mm-hmm. attends dafa mel ni peut-être euh, am na yoo xam ne lépp euh, mu ñëw teg mais peut-être euh, je vais essayer euh, continuer tuuti pour peut-être ngeen mën a gën a comprendre. parce que mm-hmm. tamit je crois voilà. Euh, indil jox man leen non duma jël loolu parce que yéen million millions la ñu waxante woon kon da ngeen may indil sama sama xaalis wala bu ngeen ko mënul ngeen indilaatal ma sama oto ngeen bàyyi mu sedd. diiran boobu oto bi fekk na def la ci moom ñaata fan. parce que oto bi le 18 juin lañ ko ko jox le 18 mai. la ko suñu la ko collègue bi jël si mi ngi ko ko indilaatal le premier juin je pense. yunaa boobu la téye oto bi téye oto bi. ça trois semaines ça fait trois oto bi bi ngi circulé ñoom ñu ngi ko dox seen euh, course. ñu ngi gis boo duggee ci internet da ngay gis carrément ñàpp ba ci yoon yor nañu ay preuve ak ay vidéo yi firndeel que ne Wally Seck moom dans sa tête il a acheté la voiture. ndax biir parking Wally Seck benn vidéo mi ngi taxaw ak waa ji ñàpp mi ngi téye benn vidéo yële si nabam mu ne ko oto bi boo paree yóbbul ko ko bu jugee soirée pare nga dawal ko ko yóbbul ko ko këram kon ça veut dire que moom il a la quoi. kon yéen li ngeen jàpp mooy que ni Wally Seck moom moom xaalis bi génn ci loxoom. génn ci loxoom ci ñu wax. parce que li ko collègue bi wax nee na ko Wally Seck defal na ko sama kanam almaati ñu toog mu validé ko ne ko damay jox Cissé kii après mu jox leen te boo seetaanee vidéo yi ci biir parking Wally Seck tu te kon ki l'a acheté la voiture parce que mi ngi ne ko dawalal ko boo paree nga yóbbul ko ko kon diggante fi mu waroon jaar ba yegg si ci ñun peut être moo am ab njur njaaj. fa la daal fa la tag. waaw gisuñu xaalis jël suñu oto yàq ko parce que biñ leen koy jox dañ leen ko joxoon avec une très bon état mais biñ ñu koy indil fi ñuy def essence bi toj nañ kubéer alors leer na nañ yàq nañ kubéer yi dégg foofu mhm. mais lenn la l'essentiel daal mooy léegi man xam nga lu may wax nana mhm. chèque bi ki ñu ko jox kan la waaw ndax retiré na waaw wax ji ah, wax ji jarul waaw waaw waaw wax ji pourtant mhm. léegi nañ lijjanti Mhm. maanaam moom it ki ñu jox chèque bi lan la ci moom. waaw ndax kooku mooy kan ba ñu war ko jox chèque bi. Mhm. ak lan la def chèque bi. ak lan la def chèque bi ndax mhm. moom it demoon na. ba borom oto bii jotul ca chèque am. waaw loolu lañ war a lijjanti c'est simple que ça. c'est de jarul muy métti waaye nag ma ma waxaat ko dama koy waxaat. waali laay waxal. waali bàyyil maye oto. non dëgg la non problème. waali yëpp oto la oto. dëgg la. problème boo fi dégg ñaan justice. waa lii kiitu oto. baa maye oto wala sax moom ba ça veut buy maye. mu dem jënd otoom. joxe ko comme ni mu def Ndeye Ndiaye Banaya. voilà boo xam ne lii lii dal na ko it ci Mapenda Seck papaam. mbaa mu dama eh, jënd ma ah, dal na ko eh. dal na ko ma mhm. ci Mapenda Seck papaam. Mhm. ñoo toog émission guddi gi mu yaatal ko nii. Mm-hmm. ma penda ñëw na li war ko jox oto mm-hmm. mu ne ko bii mu ne ko tànnal mu ne ko bii laa bëgg ca parking ba mu toog mm-hmm. appel bi ne ko bii laa bëgg mu ne ko tànnal doo may dara benn affaire waaw sa yaay ji Fama Kassé moom ti fekkee mën a dugg moom ti moo ngi moo ngi commenté yu am solo bu fekkee mën nga dugg tamit mën nga duggaat rek sa sa joxe te yónni sa sa kàddu alors vas-y ngi dégg ma penda seek dal na mu ne ko oto bi comme ñaata la tey ci misaal mu ne ko woon 7 la mu ne ko dinaa la jox 5 yaa ngi comprendre sept yi après deux yi des après nga jaar yëkkati cinq jox leen. ci saar mm-hmm. ma penda ne ko day xaar ba mat. Mm-hmm. mu ñëw jël si oto bi. Mm-hmm. mais waa ji di dawloo ma penda sekk te ma penda sekk xamoon nu mu comprendre bu ko jiñ waali. te waa mu jox xaalis léegi après problème ñëwaat na ñu ñu ñu sëfaat ko ko. comprendre parce que waa ji da doon gëmloo ma penda sekk que. bi ñu ko joxee xaalis bi. après dañoo jaar ci suuf retiré waat ko xoolal yëfi jaxase yu bon yooyu. comprendre nga te moom moo doon lépp nag di ay problème mu oto problème mu oto. problème mu oto bàyyil may oto. dégg na sama wax ji allo. allo. allo. allo Fama. waaw moom moo ngi def ça va. alhamdulilah ñoo ngi lay nuyu bu baax encore une fois alors ñoo ngi lay déglu. damay rejoindre Ousmane li mu wax sama doom jooju. Hmm. Wally Seck bindu na Seck bi allo. oui ñoo ngi lay déglu rek la déglu Fama. Wally Seck bind na Seck bi mais Seck bi joxu ko copain bi taxaw nii di leeral. Hmm. copain bi dafa jël oto bi joxe ko ñu jox ko njàmp ndax li Wally ko wax ne moom moo koy jënd te njàmp la ko bëggal copain bi am confiance ci Wally Seck daal di jël bi jox leen bi jëlee oto bi jox leen waali bind sec bi am ku ko jox ki ko jox moo dem retiré sec bi ñu reti ñu ñu ci trois millions ñëw ne waa ji quatre millions moo des ci xaalis bi waa ji ne jël ngeen oto bi dawal ngeen ko retiré xaalis bi triandé ko ba mu def 4 million ngeen ñëw ne da ngeen may jox 4 millions te oto bi 6 millions laa ko waroon na jaayee Wally Seck Wally sekk ne ma dinaa la ci fay 7 millions kon toor bi waa ji tegu ko Wally Seck waa ji mhm. waa ji dane ki retiré ki Wally jox sec bi waa ji tuddul ki ko Wally jox xam naa dafa bañ a tudd nit ki dane ki Wally jox sec bi moo retiré sec bi di 7 millions ñu lekk xaalis bi ba mat 4 millions ñu ñëw di ko jox fekk jël nañ oto bi njàmp jël ko di ci sinap di ci tourné di dox ay kursam ba ñëpp xam ne Wally jëndal na oto njàmp ba pare ñoom confiance bi ñu am ci Wally Seck moo tax ñu yëkkati oto bi oto bi jox ko waa ji te joxuñu leen Seck bi déggoo li ma wax de xam nga fi may waxee mm-hmm. li Wally ne moo ko bëgg moo tax ñu jël oto bi jox ko te Seck bi ñëwagul léegi bi Wally amee ku mu jox Seck bi kooku retiré Seck bi lekk ci trois millions ñu leen quatre millions ñoo ci des ñoom tamit ñu ne duñu laal quatre millions yi ndax 7 millions la leen waali joxoon ñoom sax 6 millions lañ ko jaayee waali waali moo leen ci tegal 1 million. ki retiré sec bi nag joxoo joxu leen ko jël oto bi njàmp di ci tourné di ci photo wu di ci def ay snap bam nee na ba oto bi xaw a siiw ñu ñëw nañ ne leen 4 million moo def ci xaalis bi kooku la waali war a woo teg ko palaasam. Hmm. ba pare ba boo bokkee ci ram daan mu génnee ko. avertir ko parce que waa xale bu góor bi di wax nee na man yàquma deru waale xasuma waale mais ki waale jox sec bi laa bëgg a leeral waale ne 4 millions la indi ci ñun ne 3 millions yi xawma la nag la nag. léegi yaa xam nga lu bëgg a xam ba pare ñu bëgg a jël oto bi ah. xam nga luy dëgg yaay. mooy waa ji man su may su may dénoncé sàcc du ma nëbb. Mhm. na wax tur na wax li xew. mais waa xoola buy dénoncé sàcc xoola buy du nëbb. waaw mais moom wax na ne. sërëm bi nga xam ne moom la gaa yi waxal ak Wally Seck mhm. nee na sërëm boobu moo def erreur ndax ñoom nee na fan lañ xamee ne ñii dañoo nar yëfi triant ba ñëwee di leen laaj carte d'identité bi nga xam ne moom lañ kiyee oto bi mhm. moom lañ defee ci carte grise oto beeg yëpp oto bi nee na ci lañ leen ngeen fayagu leen di ñëw di laaj ay carte d'identité mhm. ci lañ ko génneel na ko 4 millions kat lañ yor ndax xaalis dinaa nga mën naa mu ne nag day génne dénoncé leen ba Wally Seck xam ne oto bi mu xaale woon nañ jàmp kam fa yónni woon ak lim ko jox joxu leen ko da koo xaaj mais Wally Seck ci boppam yow laay rejoindre Wally sekk moo war a xoolaat en parce que yéen yi ëpp na neexul ci xol neexul ci ay fan sam man su ma jëndal njàmp oto damay dem sama yëkkati sec bi jox ko borom oto bi jël oto bi mais intermédiaire yi muy def ñuy joué ci kawam ay rôle yu salté loolu la war a arrêté maa ngi jégg lu baax ci kàddu te liñ ko ko def bëri na wóolu alors moo ngi noonu merci beaucoup Fama Kassé encore une mm. fois ñoo ngi lay remercier baax a baax yaay Ousmane. Mm. Mm. donc li lay wax des fois maanaam baax. baax des fois dem ba dalay dugg si musiba. te waaye li moo koy def yow koo jàpp ni moom baax na rek moo ça veut dire lu wax njaay naan boo bonee da ngay jàpp ni ñëpp bon nañ mm-hmm. waaye maanaam ñëpp baax nañ mm-hmm. donc Wally Ballago Seck comme ni ko Ousmane waxee il faut que tir mu arrêté affaire oto maye oto ak affaire yooyu parce que à chaque fois bu coow oto bëri na si moom leneen tamit mooy entourage am wala nit ñi nga xam ne am na si ñoom confiance te ñoom maanaam seen du ñuy topp wàllu baago soog yëpp intérêt moo tax ñu koy topp. Mhm. ñu bëri ay dóorkat lañ. Mhm. donc il faut que ti mu xoolaat baax a baax te leen comme ni ko Ousmane waxee Wally Seck moo mhm. leen bu baax a baax. xam na bu baax a baax kan mooy kan. mais c' est juste que il faut que tamit ngay xoolaat bu baax a baax ñan ngay ñan ngay àndal donc euh, Aïda Goudiaby merci beaucoup yow tamit sama verre waaw sama verre benn maanaam moo ko tey dama am lu ma naqari bu may ñëw. loolu moo tax mu sol ñaari weer yi. allez ku pare nga. lan moo la naqari bi lenn rek daal mooy mooy mooy mooy li sama yaay wax. kon yaay wax. léegi nag lenn rek am moomu. dërë graw loo xam ne moom après damay def affaire non su ma waxee da ngay comprendre vas-y continue laa bëggoon wax heureusement waxuma ko. ok léegi <laughs> ba waxuma ko. waaye <laughs> c'est allez vas-y continue. <gasps> non Nooreyni daa rek kay am de maanaam li lii leer leer na lenn képp la waa ji ñun balaa mu ñëw mun a dimbali mooy nañu wax kan lañ jox seeg. Mhm. te bañ cee dugal njàmp quoi ba pare bul yëpp njàpp. di ko mhm. ci tudd moom kese. Mhm. non danay njàmp ñi mu àndal. ñi mu àndal. waaw léegi xam nga ne boo nee ak ñi mu àndal. da nga siy ku si dugal da nga si da nga siy dugal. njàpp rek nga ak ñi mu àndal non na tudd ñi mu. àndal yaa yaa ngi yeb lu njàpp aussi. Mm-hmm. wala moom nga ñeme. Mm-hmm. te non def si dara neel njàpp moomoo nana mm-hmm. mu leer mais bul ne njàpp kese noppi. moom lañ jëndal oto bi. moom am na droit ñu jox ko oto mu dawalee ko noonu ko safee moom lañ ko jox mun na cee bañ a xam dara mais boo nee njàpp ak ñi àndal. parce que buñ ko jëndalee oto boole ko nit par force ñoom lay àndal dem ñu jox ko oto bi. joxuñ ko set. Mhm. kon mun nga ko cob wax ñu ñan la. balaa ñu la cee jàppale ñun ñii di wax suñ kàddu gi day àgg fu ne nii nii nii rek ñaata ñuy seetaan. 250 euh, personnes. mun waaleeg soxna Aïdara ñuy seetaan nii. Hmm? waaw waaw lu parce que xam nga lu tax man maay Wally seet ki yee soxna mhm. dara danga nga cee mën a génn. <laughs> dëgg la ah. Mhm. yaa ngi mhm. am na ñoo xamante ni ñu ngi seetaan nii jege nañ Wally. waaye moom mu wala war na cee am lu leer. moom yaa ngi comprendre xam nga lan du doon am moom. na ñëw télé Sénégal wala mu woo ñu ñëw mu wax ñu kan ak kan la amul sama mag bu jigéen. ak sama xarit bu jigéen ak njàpp ak àndal xamuñu leen. Mm-hmm. wax ñu kan la wax ñu kan la. ñu xool affaire bi nan la demee lijjanti ko. Fama Diédhiou merci beaucoup à toi aussi ñëw la nuyu maa ngi lay nuyu bu baax a baax. you very nice aussi. very bon kañ. Euh, nana non loolu la na na xool rek kan kan la waali. wala mu dem porte plainte chegam non kii li ko tax a jóg mooy. Euh, pour waali xam na fexe ba waali xam. Mm-hmm. moom xaalis bi yitteelu ko man en ce que je vois quoi li ma dégg. Mm-hmm. Euh, na waali xam li ma li ma dégg ak li ma gis. jàpp naa ni moom xaalis taxu ko taxu ko jóg bien vrai que. maanaam ñàkk koo tax a jóg doggu la mhm. ñàkk koo tax a jóg a tax. Mhm. moom mi ñu jox. Mhm. waxu kii ku ñu yebal la mu wax en général man ni sama yaa ngi dégg koy leeral ci biir. non hmm. moom mii mooy borom oto bi. na na na nga wax tur ah. mais man jàpp naa ni dafa bëgg a leeral waali këni mbébétam bi nga xam ne moom la yëkkati woon ngir jëndal njàmp zoo. oto. xëy na oto bi mi ngi ci moom waaye xaalis ba nga xam ne moom la ko waroon a jëndee matu. d'accord est-ce que dégg nga pour leeral ko waal yi. xam na ni waal yi triandé wu ko parce que waal yi mooy oto. Mhm. waal yi mooy xaalis. Ah, ah, waaw mais xam naa euh, xam naa ni aussi njàmp doful dof gu toll nii. di waal yi am yéene jëndal ko oto. muy luubal muy luubal. te en plus waal def acte bi nga xam ne acte bu rafet la. Mhm. oto buy jar maanaam 6 millions. Mhm. mun ko dinaa ko jëndee 7 millions. maanaam jàppale jàppale jàppale waale ñay ñay billaahi baax rek moom. so maanaam maanaam maanaam mariage may sa bige may sa bige maar. Mhm. munoo fee nekk di def lu baax chaque jour ñu lay xas. ak di la taqal. Mhm. bàyyil dafa am ay imbécile yoo xam jaruñ defal dara. am na ñoo xamante ni ñu ngi sa ginnaaw. maar yi ñuy def dañ lay toroxal yow te doo ko yëg. dëgg la eh bëri na foo xamante ni yaa ngi naan Wally Seck ñu dingat ko. wax ci moom yu ñaaw parce que xam nga lu tax. Mhm. ñoom dañuy jàpp ne waalee leen def yooyu parce que da leen di booleeg ay nit ñu toroxal leen te kii yàgg naa def lii ñeneen yàgg nañ def yenn. moo tax moo tax mhm. waa ji nañu dimbali na tur yi génn mu leer. voilà sax ci moom dañ koy siiwal yow foofu ngay waxee sax loolu loolu laa bëgg dafa yàgg a def dafa yàgg a def nu kon na leer ndax bëri na ci mhm. ay problème oto du bii rek de ah, bëri na ci ñu ñuy coow coow yu mel nii de un sànq bi ma lay du sax côté waal mais côté kaleen jaay te waaye li détails yooyu du ci dugg day bàyyi sax mu tëmb eh li ma lay wax nii après ci coow beeg ma pend mhm. daf ko ni bàyyil papa loolu mhm. yaa ko mën a am duñ suñ diggante kenn duñu jaxase ne ko boo jugee fee ñëwal mu ñëw mu jox ko xaalis mhm. yaa ngi comprendre parce que jàppoon na ne mais kee jël na cinq millions kii gëm ni maanaam kii bëgg parce que war na beneen oto ne ko bàyyil ma dawal bii le temps muy complété lee makiyaale ko nga ñëw di jël nga lekk ko jaay oto ba ñëw ne ko ñoom récupéré waat neen lii xam nga moom du ci topp di wax. lu ñaaw ñu ngi def yu ñaaw ci yooyu. merci beaucoup Ousse li moo tax à chaque fois su ma toog des fois bu ñu ko waxee dara ma koy défendre parce que xolam moo tax. Mhm. moom à chaque fois bu amee problème xolam moo ko défendre donc mhm. euh, Wally Ballago Seck comme ni ko Ousmane waxee bàyyi bàyyi affaire de oto wala ni maye oto. parce que non mën na ko bañ a bàyyi. non na ma may rek man oto na ma may rek man kese. mais ñi si des na leen bàyyi. xool bee baax ndeysaan te Ousmane boo. waaw mais non mën na maye sax mais mais mu xoolaat c'est-à-dire mayen bi ni muy voilà c' est man nag bizarrement bugguma oto boo eh, eh, may moom moto. wala mu jox la nga dem jëndi. moto surtout ça. Ah, man moom bëgg oto wax dëgg yàlla. ah yow boo bëggul oto. oto bu ne muut bokkuñ ma ak yow man moto man lu ma yomb yóbbu na de ba yow. bañ na ko ba sama permis mi ngi kër ga mi ngi mi ngi fee ma gaare. doo ma supporté. kuy koy supporté. kii. Hmm. ma supporté toog di dawal oto ma toog ci ginnaaw nanaa mi. luy tee. luy tee mooy lu te daal lan mooy tee loolu laa lu tee bon parce que damaa man man mënu ma dawal. gis nga ma ma dawal moto gisee ma. yaa ngi wax ak kii yaa ngi wax ak chauffeur bu doy waar. chauffeur bu ah chauffeur bu teg tere fas mën nga dawal man. dañ ah. hmm. ma jox oto nga xool. bàyyil mu foog ni mun naa jël place bu Michel nii. merci beaucoup li may baraat alors. yow rek léegi mën naa ma baraat merci beaucoup Mor Gueye bi résumé nga lépp donc. ci feneen arrête xam naa foo jëm. barke sëñ bi xam naa foo jëm. <laughs> dëgg ah, ma tokkaat xaw ni moo tax man bu may sim sama verre yéen tax ma tokkaat samay verre daa ko takkaat kay. baax maa ngi jégalu alors. Euh,